subhanallah mu ni naa ko ko waxal léegi waxal ko mbooloo mi ñu dégg ko ndax mi ngi jël ci Cheikh Sidi Ahmed Tidiane yi radiyallahu taala te kenn ku ci nekk la nga yor war nga xam bu baax mooy lan ak koo koy kan nga téye ko ndax xew na war na noo leen wax kuy Seydina Cheikh am de su mu yàlla soobe dana fent way su mu yàlla soobe dana fent way li kañ ci Cheikhu Tidiane Chérif kañ yu rëy wóor si la Habib Abdoulaye moo sax ñeenti téeméer ci Cheikh Mama Tidiane mu tal kay njëkk tal kay bi la su ma yàlla soobee man dinaa fent way كان شيخ تجان شريف كان يري الأريس قال جغلان للتونس شمامة تجان تعليم الشيخ إذا يقنني سبني على صودا من زيدنا فانتوي Thank you. bi kañ Cheikhul ab Tijaani Chérif kañ yu rëy mooy sa tuggam ji mi néef bi te te tey danoom ca boot yaag ca leer yaag ngëneel yaag ci may Cheikh na Tijaani mooy sangum lawliyaay moo leen raw ca yàlla dëgg leen rii mbir ci démb ak ci tey Cheikh na Tijaani moo leen sut ci xam-xam te mën leen ci diine gën leen a set yére gën leen a xay xay de moo di civilisé taalibe chef foo ko fekk rek boo ko xool rek xam ni moom moo leen sut ci xam-xam Cheikh Tidiane moo leen mën ci diine gën leen a set yére gën leen a xay waxuñu leen yére yi déedéet yérey leer ak jaamu yàlla ak dajegam ci yàlla Muhammad dugg biir aljanna gën leen a set yére gën leen a xay su ngeen koy demaale ak ñeneen ci wilaaya gëléem ak tukkal ngeen limaale ki béy Cheikhuna Tidiane su ngeen koy limaale ak keneen ci wilaaya gëléem ak tukkal ngeen limaale ki béy Cheikh Tidiane su ngeen koy xiyaas ak ñeneen ci maqaama taw waame ngeen limaale ci lay yeneen baa ko jox ab tariqaati shartam ku war shart yoneen bi kay def nga ay war Cheikhuna ngeen ji mbindeef ba war ku war ngeen ji mbindeef su layee du yey ku war Cheikhuna ak mu jëm moo di naari diire ku la muy noy day wat magay su diiree du jekk su deeree du kekk su dee war di daanu su dee sànni moy su xiinee du tawlu su tawloo du ñorle su ñorlee du woom la ci yaakaari mbay ku di guddu baa ngay boroom wilaaya sëriñ Seexu Tijaan lay tëb di may sëñ Haadi ne xarit kaay ma wax la samay maam a ngi ku am maam yi mel nii sañ leen a way xarit kaay ma wax la samay maam a ngi ci askanu leer laa juddoo bis ni tey sëñ Haadi ne xarit kaay ma wax la samay maam a ngi ci askanu leer laa juddoo bis ni tey ñu ne yaadi ku la jur mu ni Maodo ku jur kooka mu ni Alva ku jur kooku Cheikh Umar Fuuti ku jur kooku Muhammadul Ghali ku jur kooku Cheikh Sidi Ahmed Tijaani moom ku ko jur maamam yent yàlla Muhammad ci askanu leer laa juddoo bis ni tey ca Maodo mi jaayam borom xeeji xaali ca Cheikhu Tijaani ci alaalu way xarit kaay ma wax la samay maame ngi ku leen sopp doo texe di tegam teg cofeel wér na kay xasaade naa maan sama fadlan atay man safa axla ay borom daara gi ne atay def leen ni xasaade naa maan sama fadlan atay man safa axla أتينا في الواء عميدنا الله مولانا وعما قد نفى جهلا طيب رمضان بنا أتينا خليفة بين عبيدنا الله مولانا وعما قد نفى جهلا طيب ربنا لدينا أتينا تنجب دفلني جزا مولاي يا شيخي على يحميل شملا شيخي من على يا جلوي لنا فوز لنا غنم بسامي مرحبا سهلا فإن جئت إلى قرن أتاكم ما كفى وإلى فإن جئت إلى قرن فممن ضيف ممن قد نفى فممن ضيف ممن قد نفى مثله فممن ضيف ممن قد نفى مثله ممن ضيف ممن سوى وصلى الله مولانا على الآئي فما فضلا وأصحاب وآل بل وأصحاب بن بن صد بدفلني وآل بل وأصحاب بن بن أيوة
من زرى ليلى
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين فنعم المهيمن المعين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الحقائق الإنسانية وطور التجليات الإحسانية سيدنا ومولانا محمد رسول الله خاتم نبينا وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أجمعين والداعين بدعوته إلى يوم الدين ورضي الله عن برزق الكبرى تاج العارفين وممدهم وبرزقهم شمس الولاية الكبرى حفيد رسول الله سيدنا وشيخنا وأستاذنا وعمدتنا ووسيلتنا إلى ربنا ومولانا أبي العباس أحمد بن محمد السالم التجاري رضي الله عنه وارضى عنه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokki julit yi gannaaw bu nu sant yàlla julli ci yonent bi mi ngi nuyu kilifa yi di leen jot di nuyoo kilifa ya njabootu Seex Seydi El Hadji Malick yépp a ngi leen di nuyu kenn ku ne ci ñoom mooy ñépp ñetti fan yépp ñoo bokk benn barab bu ñu yenn sama goro moo gaañu Seydil Xaaji Malik si Maodo moo ko nangu dugal ko ci bàmmeel Sëriñ Lay Mansour moo fa yendu démb ñaanal ko yàlla alxaaji Malik si Maodo moo ko ñaanal si ñetti fan tey man nag dañ ma fee yónni ma manqué lool waaye ñi ma yónni mat lool ñi ñu ma yónni it mat ko sëkk fa ma jóge mat fi ma jëm si mat ma nekk ci diggante bi manqué man waaye yàlla baax na de ci barke Cheikh Al Hadj Malick mi nga xam ne yàlla daf koo may ñaar yu jafe ñaar yu jafe mooy gàññi ak nàññi daa bokk gàññi déglu leen Seydil Hadji Malick yàlla daf ko may li gën a jafe mooy gàññi ak nàññi
gàññi ak nàññi gàññi lu bare la nàññi lu leer la
ñaar yëpp
déggu leen li ma wax de dafa wax ni Cheikh Al Hadj Malick Sy yàlla daf koo may lu jafe mooy lu ni gàññ ba pare ni nañ bare na ko fi dajale lu ni gàññ waaye bu kenn def vérification boo defee vérification rek fekk newul nañ Maodo yor lu ni nañ ba pare ni gaañ loo ci man tus tus maa ngi nuyoo di jiital nuyoo bi ci imaam yi dëkk bi ah ilimaan yi dëkk bi maa ngi koy nuyu ilimaan yi ci dëkk bi maa ngi leen di nuyu borom xam-xam yi maa ngi leen di nuyu muqaddam yi maa ngi leen di nuyu njabootu lislaam gi fi nekk yépp maa ngi leen di nuyu maa ngi nuyu président daaira bi Serigne Alioune Guèye di ko nuyu moo mbooloom daaira bi di ko ziyaara di nuyu présidente bi soxna Awa Niang nuyu jigéen ñi bu baax a baax a baax a baax man daal xaw ma yàlla ju ma wax yu tey lu wert laa soloon mu soob yàlla rek ma summeeku yaxtaal ma ñëw fekk ngeen yaxtaal te kat Abdoulaye nee na ma bul summeeku mais yàlla xiir ma rek ma summeeku nekk booba ci këccu lay dox ma ñëw fekk ngeen wex tàll rek maa ngi nuyu suñu mag ju baax ji toog oustaz Cheikh Tidiane Fall di ko ziyaara guddi gi guddeem la bayal xaaji Mansour see ko yaral boppam jàngalal ko boppam góor ga ca kaala ga ca maxane makka ma ko jàngalal boppam yaralal ko boppam góor gu xam nga yàlla nga xam ni yeggoon na ci ne defar nit ba mu sës rëkk ci yàlla yomb na ma man alaaji Mansour comme tibb suuf may leen ma may leen ma avion lu bare capitaine may leen ma may leen ma xamoo ne kuy liggéey sang néew kuy nelaw yàgg ci rek muuti ndox bu ngeen ma toppee te teeylu ma rek da ngeen am ci gàmm gi lu ngeen foogul waaw may leen ma rek waaw may leen ma tuuti waaw may leen ma tuuti may leen ma tuuti may leen waaw waaw waaw waaw jazakumullah xayran jazakumullah xayran jazakumullah xayran jazakumullah xayran bokk ci de Cheikh Hadji Mansour Sy bokk ci de bokk ci jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf waaw ñu ngi ci Mansour
may leen ma tuuti rek ma eggale damay nuyoo eggale bu ma ñu ngi nuyu bu baax suñu mbokk mu baax mii toog alxaaji Mansour Gueye suñu xarita suñu wëlëree di ku baax nag di nuyu itam suñu ñaari mbokk wala suñu ñetti mbokk yu fi nekk di ku ñuy wax Idrissa Lo fii ci Jurbel bis bi ñuy monte seliru daairatul abkiyaa yi te sëriñ bi yabal ma fi ma def fi conférence ci tariqa sayidu Cheikh Ahmed Tidiane boobu mooy chef de l'agence bi maa ngi koy nuyu di nuyu Cheikh Oumar Diakhaté bii fi nekk ku baax nag te bëgg Seydi El Hadj Malick di nuyu Souleymane Samb suma mbokk mële ci gannaaw muy suma wëlëre gu yàgg yàgg yàgg mu ngi ne le toog di jot li nag yóbbante yóbbante bu ma far sëriñ Mbay Mansour daf maa wax ne boo demee Mbàkke ci daaira ba bala ngaa gàmm na nga ma beral nuyoo particulièrement sama doomi baay ya mu ne ko yan doomi baay mu ne ma njabootu góor gi Omar Njaay Atumaan mag ñoom ñoo bokk baay sëriñ Mbaye wax ku yàlla nattu woon ba ngay sosal nit yi doo ci boole sëriñ Mbaye moom kenn ñëmewu ko moom kenn ñëmewu koo sosal wax maag ba ma dul sos nag waaw nee na mi ngi nuyu maxtaar di ko ziyaar di ko ndokkeel nee na gàmm gi gàmmoom la moom daairatul mubtaxiina li rida rabbil alamin yëpp Cheikh Hadj Abdoul Aziz ko tudd moo tax nee na mi ngi nuyu Babacar mi ngi nuyu njaboot googu yépp mu ni ma yëguloo ne Habib Mbàkke yépp rëy ci man ma ni ko waaw mu ni ndax seen pas pas pas pas yu dëgër la waaye kër Alaaji Omar Ndiaye aatu man kër guy biriyee la ci digg kër Seydil Hadji Malick ah Serigne Mbaye nag yóbbante man wax laa ci xam sëñ bi ne mi ngi lay nuyu bu baax di leen ziyaara di leen ndokkeel ci gàmmu gi man nag man mii ndaw li maa ngi nuyu alxaaji Moussa Ndiaye di ko ziyaara di ko ndokkeel di bég ci jotaayu jullit yépp yépp yépp yépp maa ngi nuyu Mansour Ndiaye Male maa ngi nuyu nag daaira bu ndaw bi ndax lu waay di def te gisoo ci relève tiital xamuloo ne kuy liggéeye wax boo taawloo mu muuma sa yaakaar tas déggu leen ma de kuy liggéeye wax boo taawloo taw bu muuma sa yaakaar tas bu mag ñi baaxoon di sonn ci tariqa Seydu Cheikh Ahmad Tijaani ba béjjaaw nii amuñu ay ndaw ay cadet ak i cadet yu toog jàkkaarloog ñoom du ñu gëm ne kon mission bi dana continuer te tariqa Cheikh kenn mënu ko freiner ci wu ne mi ngi yem ci fexeel ko Thierno sëñ bi mi ngi lay nuyu
jërëjëf
dama wax ne kuy liggéeye wax taawlu taw ba muuma sa yaakaar tas may leen ma déglu ngir jëmmi buur bi yàlla dama ne kuy liggéeye wax taawlu sa taw muuma sa yaakaar tas bu mag ñi baaxe woon nii ba béjjaaw ci lii te amuñu relève yu toog ñu mën a jort ni mission bi du continuer waaye tariqa cheikh kenn mënu ko freine moo tax cuune mi ngi yem ci fexeel ko al mirfaul kabir yarmi an buhudin cheikh ahmad tidiane nag kënu gu mag du daanu fañ ko tiiree kënu gi ñun ko soxe faas ma nga daanu tiwaawan kenn mënu ci dara
waaw
المرفع الكبير يرمي عن بعد xelu gu mag du dal mukk fañ ko soxe day jéggi daanu ji fa sore kënu gi ñu ngi ko soxe faas waaye ma nga daanu ci yoon de doomu soxna ju laxasaayu pour yokk sa àlluwa bëgg a wujjeeg waa Tiwaawan a tax waaye noppalu leen Tiwaawan kenn du leen dugal bii foo jaar góol bi capté ko alaa jumaale dafa bare faam kenn man noo ngi sant yàlla jazakumullahu xayr may nga ma lu ma bëgg ah borom abbaye bi nee na kurus gi dëkk sama kurus la wala maa la ko may man ñett laa gën a bëgg ci àddina kurus téere basin waaw bëgg naa ko lool duma ci am lu doy déedéet déedéet ñett yooyu laa gën a bëgg kurus téere basin am naa ci quantité bu bare bare bari te li ma ci am du doy waaw noo ngi sant yàlla mi kenn moom miy joxe lépp te li muy jox joxe lépp moo ko moom yàlla joxewul yëfi kenn yàlla jëlewu fi yëfi kenn lillahi ma aata wa ma axasa yàlla lu mu joxe moo ko moom lu mu fi bàyyi moo ko moom lu mu jël moo ko moom moo wéetoo jëmmam ja moo wéetoo melokaanam ya moo wéetoo turam ya huwa alwaxidu zaatan walwaxidu sifaatin walwaxidu asmaan walwaxidu afaalan yàlla bokkul ak nit ñi dara moo tax bari na benn baat bu nit di faral di wax ku ko ci daan wax na nga ko bàyyi mooy maam yàlla yow mi naan maam yàlla lu mu bokk ak sa baay lu mu bokk ak sa yaay kon nu mu nekkee sa maam yàlla du maami kenn yàlla du maami kenn du baayu kenn du nijaayu kenn bokkul ak mbindeef yi dara lam yalid walam yulad jurul kenn juró ko li ñuy tuddee paternel ak maternel amu ko amul famille ndey amul famille bàyyi moo tax koo jéggi mu naan ba soobee yàlla jiw mi ngi dund